ami chers fidèles téléspectateurs de Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen déwénatiwaat bu baax di jéggalu euh, ñëpp ñi nga xamante ni dañuy safoo euh, tey béggee Sénégal 7 ci weeru sell bi nga xamante ni mooy weeru koor ginnaaw nag bi ñu demee premier jour koor fële ca Masalikul Jinaan wan leen nan la ñu euh, dundee premier jour koor googu foofu ak réaction yeeg yëpp tey dañoo seet si koo xamante ni àdduna bi ñëpp a ko naw la muy communicateur traditionnel mais aussi fexe na ba ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu ci milieu bi jéppiwuñ ko benn yoon parce que mi ngi jëmmal aada ak cosaan waaye tamit internationaliser ko ba tubaarkàlla fi mu nekk ni ñëpp kontaan euh, de son vrai nom euh, mi ngi tudd Omar Diaw Seck nekk communicateur traditionnel animateur mais historien macha allah tey moom la ñu defante euh, moom la ñu ñëwoon seet si ci ndogu chef bi nga xamante ni tubaarkàlla teraanga moom ñoom soxna Xadeek sëñ Mansour ñëpp macha allah neexoon na jéy lekk na ba moo du Modou tubarkàlla dama koy bàyyi rek nag mu daal di nuyoo ak ami cheikh fidèle téléspectateur u Sénégal 7 yi Omar maa ngi lay nuyu di la ziar te di kontaan tey ci émission bi. Euh, jërëjëf Thiat euh, maa la gën a kontaan maa ngi lay nuyu yow tamit. di la fay. Mm-hmm. Euh, di nuyu sa équipe bi nga àndal tubaarkàlla macha allah. Mm-hmm. di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ni ñooy seetaan li nga xam ni moom moo di Sénégal 7. jërëjëf tubaarkàlla macha allah comme ni nga ko waxee rek wax dëgg yàlla rafet na. Mm-hmm. jaar na yoon. waaye xanaa li ma ciy doole rek mooy ni ko président de la république Macky Sall di waxee. boo waxee mu ne Omar Diaw Seck du communicateur traditionnel. waaw macha allah xam nga les communicateurs mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci communication bi. Mm-hmm. di donnu géwël yi. macha allah donnu ñeeño yi. Mm-hmm. ñooñu di wax ñoom loolu seen tradition la. d'accord waaye mais nag un historien. Mm-hmm. ku nekk mën na ko doon. gëstu euh, noble mën na ko doon. dem euh, maanaam euh, toppatoo ji xam xam nga on n'est pas historien. on apprend. on apprend. mais on est griot. waaw donc ñoom nag aussi loolu. aussi seen wàll la di seen cër moo tax ñu di leen wooye les communicateurs traditionnels mais moi je suis un allah <laughs> muy lu am solo et merci beaucoup pour cette remarque parce que loolu it mhm. nekk na loo xamante ni ñu bëri yenn saa yi jaawale ko mhm. je aussi que un promoteur de la musique traditionnelle fële aux États-Unis mhm. ndaxte euh, lu ci bari foofu lay defee ay promotion bu yi nga xamante ni dañuy jóge fii di dund tradition di leen jëmmal foofu te it loolu nekk lu ama am solo alors Euh, ginnaaw bu ñu kontaanee euh, tey ñëw set la di la dalal ci euh, émission bi di ndogu chez mhm. ma lay rek noo ko dundee koor gi Sénégal ak États-Unis kooram bu daak waaw xam nga anglais day wax nowhere is like home acar mooy lan fenn du kër ndeysaan fenn yamul ak sa réew mhm. fenn yamul ak fi nga fekk baax mhm. fenn yamul ak fi nga xamante ni say waajur yi foofu lañ la jure foofu nga dund ak ñoom ba ñu faatoo fa la leen rob Euh, maanaam loo mën a amit euh, foofu nga koy yóbbu ndax wolof dafay wax ni picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf mhm. te àll lu mu rafet rafet ginnaaw lay féete kon ñun amuñu fudul Sénégal mhm. amuñu fudul Afrique mhm. donc la nekk foofu yëpp suba suñu yewoo la ñuy daw ak la ñuy wut ak la ñuy dajale yëpp suñu xol ak suñu xel yëpp mooy fexe ba nuñ ko rawalee indi ko fii bokk kook suñu askan bokk kook suñuy mbokk ñëw investir ko ci réew mi sànq nga wax ko ci say kàddu euh, ne euh, euh, doo communicateur traditionnel waaye mënuñu laa génn ci géew boobu parce mm-hmm. que mm-hmm. na nga koy jëmmalee foofu mm-hmm. fii nii sunu réew ñun ni ñu koy woowee mooy communicateur traditionnel mais au-delà de tout cela dafa am benn surplus boo xamante ne am na ci mooy li nga jàng histoire u Sénégal comprendre ko ba tax tey nga doon homme de culture donc tey bu ma la doon laaj rek ci lenn loo xamante ni bëgg naa nga def ko de façon benn présentation ci Omar ci lu gàtt bu ko defee permettre ami chers fidèles téléspectateurs yi. Mhm. xam en réalité kan mooy Omar Diaw Seck parce que c'est la première fois Sénégal 7 dékk le micro. waaw Omar Diaw Seck day euh, seen doom la. Mhm. Euh, doomu réew mi. Mhm. juddoo ci réew mi màgg ci réew mi. liggéeye fii ci réew mi. door fay jóge nag dem euh, bitim réew. ndax fii laa juddoo. Euh, tubarkalla macha allah maa ngi juddoo ci clinique Pasteur gi ci Dakar. Mm-hmm. Euh, ñu ngénte ji ma ca Tivaouane. <laughs> ma dugge fa école. jàng ca école mixte 2 bu Tivaouane. Mm-hmm. ñu jóge fa transféré ma ma amee certificat d'études primaires élémentaires euh, ca Brière de Lille. Mm-hmm. jànge naa tamit cours privé Cheikh Ahmed Bamba. macha allah bi nga xamante ni ca Ndar la nekk. jànge naa tamit ca collège privé. maam Alpha yi ma yoroo bu Tiwaawoon mhm. euh, jóge fa ñëw nekk euh, bale national La Linguère bu mhm. théâtre national Daniel Sorano euh, nekkoon naa fa ànd ak ñoom tournée ci sous-région bi ci Afrique mhm. dem ba Bénin ay Côte d'Ivoire ak yooyu yëpp ñu dem Europe jóge fa ba 1995 du 15 janvier au 13 avril ñu def tour États-Unis ak Canada ma ñibbisiwaat ba ca déwén sa ma jóge fi dem Canada. Mhm. def fa un mois jóge Canada dem États-Unis nag. macha allah nekk fa vingt ans. en quatre vingt seize. en laa dellu États-Unis mhm. def fa vingt ans yu ma ñëwul Afrique. ba yàlla dogal ba 2016 ma dellu siwaat fii ci Sénégal boobu ba léegi nag maa ngi dem ak di ñëw tubarkàlla at mu jot ma fexe benn yoon wala ñaari yoon ñëw vacances yi seet si samay mbokk mhm. am yu nga xamante ni aussi euh, maa ngi koy def comme ni nga ko waxee may un homme de culture nekk aux États-Unis mhm. yor fa rajo 2011 euh, wëlbatiku créer naa fa un ensemble instrumental mhm. muy ensemble instrumental of West Africa muy ensemble instrumental de l'Afrique de l'Ouest bi nga xam ni ay artistes Sénégal ñoo ci nekk Gambie mhm. Guinée euh, Côte d'Ivoire Burkina Faso euh, Sénégal ñoom comme ni ma ko waxee ñoom ñëpp ñu nekk fa ñuy def ay spectacle foofu léeg-léeg ma invité ay artistes ñu ñëw foofu mhm. ñu jóge ci Sénégal wala ñu jóge male wala ñu jóge Guinée di ko fa def daan naa fa def aussi benn programme bu nga xamante ni maa ngi ko tudde woon gala de l' nga xamante ni li koy def yëpp mooy di war ak di feeñal mhm. liggéeyu président de la république Macky Sall mhm. ak plan Sénégal émergent bi nga xamante ni réew maa ngi ciy gis seen bopp tubarkàlla ñu bëgg askan wi di ci bàyyi xel mhm. yooyu yëpp dafay nekk yoo xam ni dama koy def foofu xam nga fii Sénégal ko jóge ci parti benn demaat ci beneen parti dañ naan dafa transhumé tey yow sa jóge ci euh, réew mi ñëw APR euh, ban ban ban ban moo nga koy jox ban définition nga lan la parce que Macky Sall ñun ñi ko yóbbu ca palais ba. ci la bokk. d'accord bu doon APR rek Macky Sall du génn Mermoz. ok. Macky Sall coalition moo ko fal. ok muy coalition Benno Bokk Yaakaar. dafa jaamaarloog président Ablaye Wade néewal dooleem ñu war a dem demi tour deuxième tour ñëpp bàbbee ko dem jàppale Macky Sall tingoom ko ca kaw. Mhm. mu xeex ak Ablaye Wade daaneel ko. looloo waral tey jii nga seen gouvernement Macky Sall. ay ministres yu bokk APR ñi bokkul APR ñi bokk PS ñi bokk beneen parce que. coalition gouvernement coalition la. d'accord kon man ca ña voté loon Macky Sall ba mu dem palais ca laa bokk. Hmm. premier tour Idrissa Seck laa voté. deuxième tour mu ne nañu voteel Macky Sall ñu votel Macky Sall kon man Macky Sall ci ñi ko jëlee Mermoz yóbbu ko pale ba ci laa bokk. ñu ñëw tuuti euh, effectivement ci leeral hmm. yooyu nga xam ne am na solo. Uh-huh. parce que àddina moom lépp daa war di leer vu que boo demee ba intégré li nga xamante ni mooy langue politique gi lu ne di nga ko dégg mhm. parfois da siy baax aussi nga mën a leeral ñi nga xamante ni dañ lay bëgg mhm. ñu ñu daal di xam ñu daal di euh, wëyaat rek ba tey yàggul dara coow lu bëri amoon fii ci réewum Sénégal su ma mhm. juumul fekku la sax Sénégal yaa ngi woon Washington waaye nag euh, réew mi yëngu woon lool diggante le 5 mars le 5 mars keroog jour boobu laa yegg si Sénégal fi la la fekk bi bal yi tàkk pneu yeeg yëf yi effectivement maa donc euh, ak ni nga yàggee fa nga xam xamante ni moom mooy états uni bi nga ñëwee. ban couleur déjà laata ñuy dugg ci yi ban couleur la la réew mi jox. waaw réew mi. Mhm. yu mel noonu yàgg na fay am nit ñi dañoo xamul rek. ok. waaye wolof dafay wax ni ker keral mujj kàddu yi lépp lëpp mujj dew ni la daw butéelu champagne bu ñu koy yëkkatee ba dóor ko. Mhm. day pëfëfëfi fuur ca kaw. Mhm. waaye gis nga la cay fuur kenn du ci naan dara. la ni tekk ca taat wa dal. loola la ñuy naan. kooku mooy représenté kan. kooku mooy représenté nit ñi bëgg réew mi. Mhm. ñi bëgg jàmm. Mhm. ñi xam fi avenir réew mi jëm. Mhm. waxuma état de. ñi bëgg Sénégal. d'accord parce que loo gis ci àdduna ci jàmm nga ko mën a am. te boo xoolee ci jamono ji ñu toll tey lii bu ñu koy def dañu ko tal tey waa Ukraine taluñu lii. déedéet. te loo gis ci àdduna. ay benn ki ñaari nit ñoo koy tàmbali ci ay mm-hmm. état la ñu ci seen yoon nekkul tey ñoo cay dee mm-hmm. yow réew mi ñun noo ko bokk mm-hmm. bu fekkee jigéen dafa nekk ci réew mi olof njaay dafa wax ni jaxato dana meññ te boroom du ko yëg dem ba taxaw wax ni diw sàngam doomu réew mi la góor la man jigéen laa dafa seq ak man nàngam te tegu ko ci yoon kooku problème ñaari nit la nañ leen jaarale fi ñuy jaarale citoyen yëpp. effectivement dafa porter plainte. Mhm. ka mu porter na wuy ji. làmmiñ du lekk moroom ma te mhm. soo demee nga wax wax contre wax la bu ne maa def lii nga ni defuma lii boo gisee juge ak avocat di mën a fekke di àtte lu ñu fekkewul dañuy déglu. d'accord le sens de l'écoute. waaye ngay dem di wuy ji. Mhm. lañu la jiiñ ba nga koy doxi tàgguwoo. sa njaboot sax kenn yëgu ko te ba ñu la laajee nga ni bërëb sàngam maa fa dem waxtu sàngam laa fay dem ba may dem nii laa fa solo waa léegi boo demee ba tooxi maa doon a ñëw ca ngay wuy ji lan mooy ndey nga ni génn leen ñoo ngi may yóbbu. ok. pourtant ba nga fa doon dem tàggoowoo ba nga doon doxi loolu tàggoowoo. Mhm. demal nga ànd ak yàlla foo nekk yàllaa fa nekk. Mhm. boo demee yàlla nga fay fekk boo demee yàlla lay gunge àndal ak dëgg. Mhm. ndax ki taxaw di la accuser bu demee bu waxee nit ñi dinañ xam lu yanu maanaa bu demee bu waxee nit ñi dinañ xam lu yanuwul maanaa kon su ma la déggee. ci mhm. say kàddu dagguma la. Mhm. Euh, mhm. ñu nit ay journaliste lañ. Euh, leeral euh, dafa baax ci ñi nga xamante ni ñuy déglu tey seetaan. ni ma la déggee nga wax dafa mel ne da ngaa jàpp ne Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom lañ doon wax ay coowam ak Adji Sarr mi nga xamante ne dane woon da koo sàkku. plusieurs fois moom ni mu taxawee ak ni mu woowee askan wi ngir ñu jóg daal di jàmmarloog ñi nga xamante ni ñoo ko naroon a tëj. parce que nañ ne lépp mi ngi ko ñu sukkandikoo woon ci complot. yow àndoo ci loolu. noo man ànduma ci parce que muy usmaan Sonko. muy ma mm-hmm. Massamba muy ma Mademba. Mm-hmm. muy Aji Sonko Aji Aji Sarr muy Penda muy Ngóone muy muy Ajara. ñoo mm-hmm. yem ci man. ay doomu réew mi lañ ku nekk danga am sa àq ak yeleef. Aji Sarr jigéen la. doomu jàmbur la. lu mën a xewit jigéen la. moom la muy def defe naa ne bu fekkoon defe na ko teeyu ba kanam wala mu def ko ci neex-neexam. du xëy di porté ji kenn plainte. ndax yu baree ngi xew te kenn yëgu ko. mais ñu bëri aussi nee nañ dañ ko xaw a defaale politique. ci biir loolu bu fekkee dañu ne dañoo defaale politique. Mhm. foog dem am dégloonte am loolu yëpp fa lay leer <laughs> parce que politique ñu ci coow coow coow tey jii. Mhm. ak lu ci mën a xew am na lu nga xamante ni yàlla rek moo yor doole. Mhm. nguur yorul doole. bu fekkoon lu waaye yéene nit mu dal ko kon maay jëkk yuuxa ngir samay noonu te yàlla rayalul kenn noonam bu ko doon def ku sa soppe dee mu dekkal ko. tubarkalla la vie elle est faite de contradiction sax donc nit ñi ànd ak yàlla. man da nga maa jiiñ boo ma jiiñee damay dem. yow tey ji bu ñu la yeewoon quatre heures du matin ni la kaay wuy américain yi nga ne lu xew ñun la dañu ni septembre 11 yaa daane loon building yi et eh, boo xëyee da ngay wuy ji. bien sûr. parce que xam nga la moo tax. Mhm. parce que laaloo ca taxawoo ca te xam nga ne du yàgg ba ñu tëj la ca mbaa ñu la ca. muy lu am solo leeral googu it am na solo lool wax dëgg yàlla mais ñu ñëw tuuti rek. Mhm. ci wuyu geeg woote ga réew mi ni mu jaxasoo mais vie yi nga xamante ni jóge na ci. Mhm. maanaam bakkan yi ci rot. sa population bi rëbale wu Euh, dajji yeeg tasaare yi lenn lu nekk bari ci. Euh, yow aussi yow mi nga xamante ni yaa ngi ci wetu euh, son excellence Macky Sall. Mhm. ñu ci bëri waxuñu ne no seulement kii di Sonko moom mooy indi coow li. Mhm. waaye c'est le c'était le peuple ñoom ñoo meroon. Mhm. peuple population sénégalaise ñoom ñoo meroon ki nga xamante ni moom mooy son excellence. ndax dund gi ni mu mettee ba bakkan yi di ci rot nga commencé ñu gis ni ñuy dajjee Auchan yi yow aussi euh, ci benn regard boo xamante ni bu bu bu neutre la mhm. moment boobu ba nga ko gisee ban réaction nga am loolu bu ñu waxee ni peuple bi la du peuple bi yëpp am na quelques frustrés yu fi nekk mhm. teyit nag unanimité kenn mënu ko am fenn mhm. yàlla mi sàkk ñëpp ñëpp jaamuwuñu ko am na réew yoo xam ne boo demee tey nag la ñuy jaamu am na réew yoo xam ne boo demee ay xeer la ñuy jaamu am na réew yoo xam ne gëmuñu sax ni yàlla am na d'après vous bu doon quelque la kon ñeneen ñi lan nañu li xewoon moo di hmm. ña nga xam ni seen yoon nekku ca hmm. xaaruñu dara ci état hmm. merewuñu état ñoo nga ci seen kër toog keroog kenn génn ndax tey ji ñoom ñu ca dee tey ji ku ca amoon sa problème génn di woo Ousmane Sonko wala ngay woo keneen doo ko gis macha allah Ousmane sonk keroog ba ñu demee ñu téye ko ba bi ñu ko bàyyiwaate bi mu ñëwee këram lan nga gis ay yuuxu ay tàccu nit ñu kontaan ci saa si ñëwu Ousmane sonk boobu def na leen te fàttali nañu fukki nit ak ñeent yi dee. Mhm. te yi doon mën boobu su ma doon moom bu loolu xewee sax bu nit ñi yuuxoo ma yëkkati sama ñaari loxo ni na ñëpp dal. xam naa ni seen sedd na mais na ñëpp ñibbi bàyyi leen bu leen mbég te ndax ci la ñu nekk nañu fàttaliku fukki doomu sénégalais yi nga xam ni dee nañu tey te sama coow li waral ko moom it na doon dem di jaale ci ñi nga xamante ni ñëpp li ma la wax de bien dégg nañ xam nga biir mhm. ñaar mënu cee ànd naqar ak bànneex bi mu ñëwee ba ñuy tàcc di jubilé booba fekk na néew yooyu seddaguñu mhm. foofu laa waxe d'accord leader dafa am nooy def bu ñu tàccoo nga ni eh bu kenn tàcc. Mhm. bu kenn jibile bu kenn kontaan ñu ne lu tax ma ne xam naa ni bég ngeen waaye na mbégte mi nañ ko nëbb. nañu wane suñu naqar ndax doomu Sénégal yi dee. ak fi réew mi toll. bu ñu daaneelee ci dossier boobu noonu. Euh, mhm. tey euh, benn regard bu loin ba tey boo ko amoon ak tey boo doon am euh, jàngat booy def ci situation woowu bi nga xamante ni mi ngi koy dund moom Ousmane Sonko. Mhm. ngir bëgg réew mi bokk na ci li tax mu daal di samp ndëndam. Mhm. waaye carrière politique am. li nga xam ne nga ko tey bu doon États-Unis mu nekk koo xamante ni leader politique la bëgg a postuler ak li nga xamante ni ñu ko koy toppee nan la fay demee. waaw xam nga dafa am lu nit ñi di jaawale. muy lan bëgg réew mi ak bëgg a jot ci réew mi bokkul. moom ban la ci def. moom bëgg a jot ci réew mi la def. di bëgg jot ci réew mi te jotagul ci réew mi xam nga ku may naan moo bëgg réew mi ki ma gis mu nekk ci réew mi di defar bu ñu ko saagaa mu muñ. bu ñu ko tooñee mu muñ. mais c'est son devoir tamit waaw moom laa la waaye son devoir waaye bari na ko am devoir te defu ko. <laughs> mais il est obligé. parce que c'est c'est le président de tous les de tous les. gisoon nañu fi Bokassa gisoon nañu fi Idi Amin Dada. Mhm. gisoon nañu fi Mobutu Sese Seko ñoo ñëpp ay africain lañu fii lu ne am na fi fàtte fàtteloo fi ne mais fàtte amu fi moo tax olof nee na loo gis nit mel ko di ko def nanga ko sant yàlla ndax dañ daan wax ñu ni euh, dañu wax ni àll jarul ñeewe matt sëñ Babacar ni ahankañ ñu ne ko lu tax mu ne am na àll bu am matt te kenn jotu ca. man su may jafandu damay jafandu ci lu dëgër ak lu ma gis sàmmaam ne na làmb te dajoo dara moo gën a nooy lu ñu diw ki ma gis ci réew mi daal mu toog di muñ di jàppale réew mi di boole déemam ak daqaaram di jëggaani di ñëw di def ñu gis train yi gis pont yi gis euh, euh, BTR yi gis euh, maanaam programme yi muy def CMU yi ak bourse familiale yi ak yeneen ak yeneen yi ñuy wax kooku mën naa basé wu ni gis nañ ni bëgg na réew mi kay ñëw te defagul dara kooku xamaguma lu ma indi lu mu indi. waa nga dikk ci sama question donc est-ce que ça que sa réputation politique permettre na ko lii nga wax nii tey jii li ñuy coowal Ousmane Sonko nii fii day Afrique sax di Sénégal bu doon États-Unis ga nga xam ni dëkk naa fa 27 ans kooku yeneen la ñuy wax. Mhm. foofu jigéen day ñëw rek. ngay politicien wala ngay gouverneur wala yaa xam ngay lu mu doon mu ñëw tuumaal la rek ni làmbaatu nga ko rek say dossier bale nañ ko bu yàgg teg fee pour nga demal ci télévision sax problème la. donc droit humain foofu dafa am doole. voilà donc yii ngay gis fii coow yi nii di ko wax yooyu c'est parce que Afrique la te gis nga nit ñi nañu def ndànk. Hmm. coow lu bari day dàq picc waaye du ñoral tool. d'accord gis nga yuuxu yi ñu nekke ak saaga ndey yi ñu nekke ak wax yu bon yi ñu nekke ci dëkk bi yooyu falul président folliwul président. xam nga luy fal président. mooy lan da ngay dem nga inscrire nga téye sa carte loolu mooy sa sa ngànnaay. d'accord. ndax boo nee tey dama bëgg président Macky Sall dama koy jàppale dama lii te bu élection jotee doo voté ji yow bu Macky Sall loroo yaa ko lor. que fu mbooloom taxaw tey jii mu yaakaar fa fanweeri nit nga ñëw nekk fa fanweeri nit ak benn mu ne am naa kenn ku ci dolli ci jour élection ba jot dama voté ji yaa ko rey. boo ne tey ji Ousmane sonk laa bëgg mu jot ci réew mi te amoo carte voté ji woo tey jii Ousmane Sonko fu mu woote nga ñëw tàcc ku ko tudd nga ni nangam jour élection jot nga sangu tëdd di xaar reen ngoor ñu joxe e- e- résultat yi bu Ousmane Sonko perte yaa ko perte. kon mu mel ne leer na Omar parce que mhm. leeral nga lu bëri nee nga bu doon États-Unis kon leneen la ñuy wax. Mhm. Euh, fi mu nekk nii nag carrière politique am. Euh, mhm. yow en tant que euh, nit boo xamante ni citoyen nga mais aussi ngay dund politique parce que déjà fa nga nekk ci Europe. yaa ngi ca Amérique du moins yaa ngi yaa ngi doxal ay émissions yu am solo foofu. yoo xamante ni tey mën nañu ne mën nga am loo xamante ni mën nga koo for comprendre ko ci. politique mhm. sénégalaise fii nii euh, pour pour yow réputation politique gu Ousmane Sonko est-ce que permettre na ko mu doon président de la République fii Sénégal xam nga nguur yàlla moo koy jox jaam nit joxu ko boppam président Macky Sall tey jii président gi mu doon 2012 ku ko ni woon yow mi yaay doon président bi du campagne kon du def ay caravane hmm. kon du lakk essence am kon du dem ci fond fin village yi hmm. ba ñëpp siisoo fii sëñ Sidi Moxtaar wax ni dem leen ngeen wuti dafa dégg ndigal dem moo tax wolof nee na bopp buy sax parke nopp buy dégg cay sax. tubaarkàlla mu dem ba mu demee tey jii nit ñi dafa am loo xam ne dañ koy war a fàttaliku élection yi yamul rek ci capitale yi wala ci région yi ak chef lieu yi. Mhm. gis nga ñi ci àll bi di voté ku leen yëg ak ku leen gis ak ku leen safoo ak ku leen faale ak ku ñu xàmmee la ñuy voteel ñooñu dinañu toog sax un an wala six mois du ñu ñëw ci capital yi ñoo ngay bay di dunde yaakaar yàlla boo leen yëgee nag ñëw am yoo leen dikk am promesse yoo leen def ñoo ñooy am ci yow yaakaar votel la président Macky Sall ba mu demee wuti na jiital yàlla yàlla muy joxe jox ko te booba Ablaye Wade li mu yor Macky Sall yoru ko moo dàqoon a maye Macky Sall fuuf gën a mën a neexal nit ñi gën a mën a bëgg waaye nag la mu bëggoon du moo ko doon jox boppam yàlla moo koy joxe may di ko jaarale ci nit ñi gis nga même coow yi ñuy coow naan waa président Macky Sall du fi am troisième mandat du fi lii du fi la troisième mandat Macky Sall bu ko neexee bëgg ko su ko neexee ni dama bëggaat. mu teg ko fan aussi. mais est-ce que bu bëggaatee dinañ ko ko joxaat. Ah, foofu la mooy ah, problème wax baa ngi foofu. très bien. su ma neexee ni bëgg naa. Mhm. loolu ku ne am na ci droit. kay waaw Macky su ko neexee mu ni damay toogaat 2024. Mhm. kenn mënu ci dara ku ma neex. nga gàddu sa carte xam nga lu koy faj Macky léegi bëgg nga waaye man joxaatuma la voteelu ma la wala Macky bëgg nga gis naa li nga def li nga def saf na ma yéene waat naa la boo fi toogee yi fi neex ñu voteelaat la nga gañewaat yëf fi jeex gis nga Sénégal lu ñu war a bàyyi hmm. ñoom personnage yu nit moo leen di déranger nañu bàyyi loolu nit ku nekk li ko yàlla def ci moom nangul ko ko naar loo ko bañ bañ bàyyi ko xonqaayam gis nga man mii dul dara sax lu mu bon bon am na lu yàlla def ci man yow mii tey ji lu mu bon bon am na lu yàlla def ci yow dangaa indi li nga am ma indi lu ma am loolu moo waral tey ji toogaay bi mu doon continuer c'est na nit ñi delloo si seen xel te xam ne suñu Sénégal gii Macky sàll moomu ko opposition bi moomu ko ñun ñëpp noo ko bokk kenn du jóge ci biti ñëw dina ko defaral bu defaroo suñu ndam lay doon bu yàqoo noo koy yëg kon ku ne daal am na te nit ñi war fàttaliku ni les hommes passent les instituts demeurent tout à fait. mais bu fekkee da nga mer yàq innocent bu dem ñett ñetti ba jënd otoom nga romb ko ci mbedd mi yoonam newul ci politique bokkul sax ci parti politique xëy na moom self made man la nga toj veeri otoom wala nga yàq alalam kiy jóge Europe ñëw indi ay Auchan teg nga yàq ko yàq bu nga xamante ne xamoo ni yéen yéen a koy fayat. Mm-hmm. ndax impôt yi ñuy fay. yooyu ci la ci la ñuy defaraat réew mi. Mhm. yii nit ñi lapp-lapp yii nii fi am. ñu mhm. temps Senghor fekke nañ ko de. waaw il faut reconnaître aussi ko woon de. Mhm. temps Abdou Diouf sax am na. lu mais kenn ku nekk ak sa sa gouvernement ni ngay. manager sànq wax nga ko léegi nag nit ñi ñoom nit ñi manager ci yoon lañ ko teg. defuñu dara. xale yi ñoo war a delloo si seen xel te bañ a nangu ku leen utiliser ak ku leen di use niñ koy waxee. ak coow lu nga xamante ni génn leen xeex génn leen sànnante bu nga xamante ni boo doon wër mbooloo ma ba mu jeex kala koy wax doo ca gis doomam doo ca gis jarbaatam. mais euh, il faut reconnaître ah. aussi tamit Omar que ne mm -hmm. euh, population bi frustré na frustré wu nañ te yenn saa yi seen frustration. yëpp am nga période boobu lu ko waraloon. même bu dul période boobu période ah. boobu sax li loon affaire bi. tàng nii allez-y boobu réew mi ñëpp frustré état bi sax dañu frustré. ndax yàlla dafa indi ci àdduna bi. loo xam ni kenn xamu ko. waaw Covid 19 c'est vrai Covid bi ñëw. wàllaate gi bari dee gi gaaw te doomu aadama ragal alaaxira ragal dee nit ñi jaxasoo couvre-feu yi ñu doon def couvre-feu yi nee naa leen jaru ko woon sax ndax bu tëddi jotee nit ñëpp dinañ tëdd te feebar bi kenn newul kenn newul kenn guddi laay génn bu ñu doon xool sax couvre-feu yi sax bëccëg lañ ko waroon a def tas marché yi wala ñu jël ay distance def social distance ak yeneen yi ñu war a def. mais yooyu yëpp jaxasoog doomu aadama ak ñàkk xam lu ñuy def moo waraloon yooyu frustration yooyu am tëju bi yàgg nit ñi sonn occasion yu mel noonu am nit ñi tëb dugg ci mais bañ demee ba pënd ba wëri tey jii gis nañu lekk la ma xaw gis nga lu mel noonu ku ko fi woote waat tamit doo gisaat kenn parce que doomu sénégalais yi ñoo xam ni erreur dafay am mais ñooy dem ba jombale seen bopp yenn yi. c'est vrai que dootuñu ko nangu c'est vrai que bi yooyu amee yëpp tolof tolof yi bëri woon na it yàlla dimbali nañu indil nañu fi coupe du monde yaa ngi coupe d'Afrique amin coupe du mhm. monde yàlla ñëw am nañ fi coupe d'Afrique yaa yaa ngi dégg qualification ñëw na ak yeneen i merveille yu am solo loolu mooy indi leneen tubaab yow tamit te kat xoolal fi mu ne ñoom ñoom Macky Sall ñoom APR fi ne kontaan nañu ah, waaw ba tey ba tey réew mi ñëpp sax kontaan c'est le peuple boo fayoo doo gor <laughs> ndax ndax nag Macky Sall yàllaa koy xeexal. Eh, eh, eh. noo xam nga la moo tax. Hmm. coupe d'Afrique bi ba ko ñu bare bëggee bare woon na. Hmm. ku ne amoon na yéene te jotoo ko. tubarkalla. yàlla def Macky Sall jot ko. ñu ni ko déet na waaye yàlla defaat ko tey jii muy président Union africaine. jiite Afrique nekk champion d'Afrique. yàlla def bërki démb ñu ñëwaat stade bi ñu doon wax naan alal gi ñu ci def ak naa nga bërki démb bi ñu ko ko lu ñu wax ni moom la ñu jaay. six cent millions hmm. macha allah. mu nekk bijou bu rafet bu nga xamante ni da ngay toog di ko seetaan nga defee ni yaa nga Europe wala yaa nga aux États-Unis mhm. Macky Sall loolu buy dem du ko dajji di yóbbu fi la koy bàyyi tubaarkàlla macha allah tey jii yàlla def tubaarkàlla macha allah ñu dem ba qualifié ñoo nga jëm Qatar gis nga la indi loolu mhm. mën naa indi lii keroog damay toog di ko waxtaan sama mag bu jigéen ma ne ko est-ce que xam nga ni 2024 mën naa man ko bu coupe amee man ko élection kenn du ko tëgg man ko laam lu mu ne mu ne ma man ko boobaa dañ naan coupe bi ñëw na léegi Macky demal rek nga toogaat <laughs> non Sénégal ko ah, ah, ah, te jigéen jiwuñu nag ndax lii dafa bokkoon ci sunu aada macha allah démb ca histoire mhm. waalo bu ñu la ma sànna fal mhm. nga def ñaari at ñetti at réew ma doxul dañ lay folli jolof bu ñu la ma sànna fal ba di la yóbbu njas yiw ngay sangu ji dañ lay jox ay pepp jox la ay dugub ak i gerte ak i bere fi xaal ak yëpp ñu tuur ko fa nga toog fa bis ba bis dellu si bu yëf yee génnee naat ñu xam ni sa nguur dina naat bu defee ay coxot coxot ñu xam ni nguur gi day am bekkal <laughs> yooyu dafa am nit ñi dañ ko daan seet ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax gaaf bu dee am ci jigéen la nekk wala ci fas wala ci sampinu kër waaye ki yàlla jiital ci kanamu réew mi tamit tey tubarkàlla xoola ba ay yi bay tàkk ba mu yëf coow li bëgg a yàq yàlla ñëw taw ci mu sedd guy. tubaarkàlla la taw ci coupe d' afrique bi. Mhm. ñu ni déet na waaye mu taw ci euh, président union africain bi ñu ni déet na waaye mu tawaat ci. li nga xam ne mooy qualification yu yàlla mën na cee taw indi fi coupe du monde. Sénégal dara jomb macha allah ah. nit ki sax mi ngi dund lu ne lu ne mën na koo am. mais ñu gën a woy ba tey euh, sànq maa ngi la koy wax ba tey dañu desandi rek euh, ci li nga xamante ni moom mooy politique. Mhm. jàpp nga ne am nañu mille chance et yàlla mën nañu dimbali coupe coupe du monde bi ñëw fi waaw waaw meew jombul pël adduna lu ne mën naa am. Omar Diaw Seck nekk da daa neex ah. yàlla piisam rek la yor foo natt mu daggal la sama yaay ko daan wax. waaw gis nga boo bëggee ñaari mètre ci ñaari mètre nga yem boo ko nee piis bi sax laa bëgg. ah il faut viser loin bu la mënta jox. lépp sax jox ci lu bari gis nga président Macky Sall. Hmm. c'est un visionnaire. jàpp nga ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo organiser coupe du monde bi aussi dinañ nangu ñu bàyyi ñu ñu gagné. ah waaw mais nag lu mu bëgg la bari bëgg bu dee njuuj njaaj ak yenn yi dafa yàgg ci ci ci ci ci ci monde boobu. yàlla mooy joxe. Mm-hmm. mbaa du même bu nuy bañ buñ ko waree jël. dama ne la ñii tey jii est-ce que waa Afrique bi ñu jël coupe d'Afrique bi Afrique kenn ku ne bëggoo ko woon a yóbbu sa réew. ah mais yàlla foqati ko jox ko Sénégal. tubaarkàlla mais kaaf dañ ko yéene woon sax. tubaarkàlla waaw d'accord mi ngi noonu léegi nag tubaarkàlla yërmande yàlla moo ëpp yéenay kaaf. Mhm. yéene yàlla moo ëpp te senegal dara jomb ko. Mhm. waaye ci kaw ñu delloo si suñu xel. gis nga njiitu réew. Mhm. yàlla moo koy tudd Ousmane Sonko. bu yàlla tuddee ni dina mës a yilif Sénégal kenn mënu koo tere yilif Sénégal Karim bu yàlla tuddee ne dina mës a yilif Sénégal kenn mënu koo yil tere yilif Sénégal Macky mi yàlla dafa tuddoon ni tey dina yilif Sénégal moo tax mu yilif ko tey. macha allah day lu am solo tubaarkàlla macha allah réew mi fal nañ ko. Mhm. falaat ko. Mhm. mi ngi liggéey nañ ko bàyyi mu àggale li muy def. Mhm. wàññiwul kenn dara. bien sûr te ñu ñaan yàlla gudd fan ak fekke. Macky Sall am na yeneen yu nekk ci. ci ci ci ci ci kanamam. Mhm. ak yeneen yu nu yu mu visé. Mhm. lu dul nekk ci Sénégal gi di forcer ak di xëccoowaat ay nguur. boo gisee affaire troisième mandat yi nit ñi di wax ak naan troisième mandat ñoom ñoo xamul rek du troisième mandat. Mhm. deuxième mandat wu cinq ans lay doon. parce que ñoom ñoo fi tëgg référendum te loolu dañ koy fàtte. ok mais Barthélemy Diaz wax na ko. sont des politiciens moo tax ñii ci topp di mbambax mbambax nangam Macky Sall def na mandat wu sept ans. bu fekkoon dañ ko bàyyi mu defaat beneen mandat wu sept ans ñu ni loolu mu ngi deuxième mandat mais ñoom ñoo fi tëgg référendum. mais ñu ñëw ci actualité bi gën a récente bokk na ci euh, li nga xamante ni jot nañ ko waa Sen TV dund nañ ko PDG Bougane Gueye Dany. 72 mhm. heures boo xamante ni dañoo coupé seen lépp euh, parce que rek ki nga xamante ni moom mooy Ahmed dara di nouveau maire bu Guédiawaye mi nga xam ne dañ koo tere revue de presse. Mhm. ak fa nga xamante ni aussi moom mooy la Sen TV. Mhm. ñu bari jàpp ne acte bu illégal bu jógee ci Babacar Diagne. Mhm. ngir loolu nga xamante ni wax na ne euh, kii di euh, Ahmed ay dara a exercer. ci tàmbali ba kii di Bougane Gueye Dany moom àndoon na ak ki nga xamante ni moom mooy. Euh, ay dara mhm. te di ko xamal ne moom na ci nekk ndax moom mi ngi ci ginnaawam mhm. mais actuellement gisoo ne dañ ko forcer la main ba mu démissionner et que loolu aussi la tamit euh, lu lu yanu maanaa la le mhm. moom mi ngi doxal te it wax na ko clair et net avant muy euh, doon meeru waaye ne même bu ko doonee sax du tere mu bàyyi parce que sénégalais yi ñoo ko def li mu doon tey ban jàngat nga ci waaw mais man moom nga wax sama xarit la xam naa ko day ñëw États-Unis di ma fa fekk mm-hmm. ñu seq jàmm seq salaam muy nit ku baax mm-hmm. Mm-hmm. waaye sama maam nee na xar day weesu mbote bu bëggee doon tudd mbaa tabaski ok loo gis ci àdduna dafa am fu muy tàmbalee Ahmed Aïdara revue de presse bi muy wax ak média yi moo ko build up moo ko formé ba nit ñi xam ko ba bàyyi ko xel ak coow yi mu doon def ak itam ji ba yàlla def ko li mu def tombe yàlla tuddoon ko ci moom Ahmed Aïdara bu bëggee liggéey réew mi yàlla jox na ko charge tey bu mu mën a liggéeyee réew mi te sa maam nee na ku daw ba yegg waroo bañ ko xelu revue de press waru cee nekk rek sax ci mu jëm abadan léegi war na mën a puus sax bàyyi keneen di def revue de presse ba leneen fekk ko ci moom yàlla dencal na ko yeneen cër yu ëpp revue de presse c'est nag moom du ko xam ndax bët dàq xool waaye li koy fàtt du ko gis kon tey jii ñii di ko supporter ci loolu xeexukaay lañ ko bëgg a def rek senegal delloo nañ ko njukkal ndax ba voté jotee voteel nañ ko fal nañ ko Aliou Sall ma fa nekkoon jóge na fa yàlla moo tudd ni jeexal na Ahmed Adjara mooy ñëw tey mu ñëw kon ki nga xamante ni tey jii moom moo fi nekk ak ñii ñuy wax ay Bougane Dany ay ñii ñëpp ñoo ñëpp dañuy wut rek ndax coow li li muy bareek xumbal beek yooyu yëpp ko ci président ni woon kaay wuy sama suba nga wuy ji te boo leen neexee ñu waxtaan loo xam ne bu ñu génne duñ ko wax moo tax nit ñi ñoo war a yeewu bañ a nekk yatu kenn bañ a nekk jaasi kenn jaan moom moomu ñuy wax amul dara lu muy def te du ko teg ci yoon mentalité anglophone la yor nii la mel xam naa ko bu baax nit ku jub la nit ku dëggu la nit ku gore la nit ku baaxangoo nekkoon ambassadeur senegal Sénégal à Washington DC ma jaxasoog moom xam ko yéppam ci yoon la ko teg gis nga lii muy def du lu mu fortaatu fii la nekkoon office de radiodiffusion télévision du Sénégal nekk fi ak sama benn cousin bu daanu woon ci avion gaañu ñoo daan defandoo journal anglais ak Adrien Diop sama cousin boobu di Makhtar Gueye kon kooku média kenn amul loo ko ciy jàngal. d'accord ba tey waaye nit ñi. Mhm. ñoo war a def ndànk. Ahmed Aïdara revue de presse bii. bu ko bàyyee du ko wàññi dara. mais lu mu war a a boole la nag ak li nga xamante ne jox nañ ko lu mu mënoon a boole la di ko def loolu kenn. looloo tax ñu bari ne dafa illégal la fekk tey mu jël yi décision daal ne waru nga xamante ni mënoon na tax bu amee ay problème mhm. ba parce que ñu waxante dëgg. moom mhm. il est seul mhm. ak moom. le seul moyen bi nga xamante ni moo ko daan permettre mu mën a génn jàllale ay waxam est-ce que du loolu lañ ci ragal. boo tax ñu retiré ko ci boîte bi Ahmed Aïdara du nekk sël. même bu fekkee ñi ko war àndul ak ñoom. wolof Njaay na biir bu ma newul ak dugub du ma nekk tabax. fii daal man xam nga lu ci bari na ñi ànd ak moom xool intérêt géejawaay ñu naxante liggéeyal géejawaay tey ji Ahmed Aïdara warul gis boppam Aliou sàll warul gis boppam ña ànd ak ñoom waruñu gis boppam xam nga lu ñu war a gis l' di de géejawaay te dama ko daan wax chaque fois bu ma ko xee président Macky Sall daf ci daan kontaan nee naa leen énergie ba ngay def bay xeex ak sa noonu mu di la yokki noonu soo ko defee ci naxanteeg moom dana ñëw. yow dangaa ngaa ni ne moment bi Ahmed fi mu toll naxante la war a def nii tey. Hmm. Ahmed naxante la war a def. ñoom Aliou Sall ñu ànd ak moom it naxanteeg moom la ñu war a def c'est réciproque. ah waaw. ni ay dara war a naxantee pour intérêt Guédiawaye ñoom it noonu la ñu war a naxanteeg moom ndax intérêt Guédiawaye maire aussi euh, état lay war a wax waxataay directement pour mu li moom bu wàccee it ñee dañoo war a wàcc mooy li ma wax bien ñoom dañu war a négocier ak moom moom aussi mu négocier ak ñoom ñu àndandoo négocier ak état ngir intérêt Guédiawaye Ahmed yàlla sagal na ko ba pare mhm. ndax bi nga koy jox maire bi ñu bari yaakaaruñ ko woon ndax xëy na doole ji ñoo ngi ko yaakaaroon ci Khalifa Sall ci ci Aliou saal mhm. waaye yàlla ni déedéet Aliou Sall tey lay jeexal Ahmed Aïdara mooy jël kooku kenn mënu ci dara. tubaarkàlla macha allah moo tax nit ñi war a gëm yàlla. Mhm. te xam ne affaire bi foofu la nekk. bu ñu defee ndànk rek sama benn yaay daf ma ko daan wax ca Sorano maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak wér muy Adja Maaw ko yaate ne woon na ma doom mun naa mun ma àdduna boo defee ndànk foo bëgg a àgg fa àgg dama leen di wax toujours ñun barewuñu 17 million rek la te Sénégal yàlla daf fi def mu nekk réewum barke réewum sutura réew yi ñu wër yëpp naw ñu ñeeñu mhm. loolu bu ñu ko yàq mhm. balaa nga xam valeur senegal nga génn dem ba ci biti mhm. ndax yow bu fi nekk sax am na loo xam ne doo ko xam mais boo demee ba ci biti ba gis doomu senegal yi jom ji nu àndal personnalité bi nu àndal ak bëgg gi nu bëgg Sénégal ak bu ñu demee ni ñuy namm Sénégal. ak ni ñu fonk Sénégal nitu état yi ak politiciens yi. bu mu tax ñu yàq suñu réew mi foofu sax lay pëtëxloo lay laaj une question boo xam ne su ma juumul mooy mujj de ah. euh, bu soobee sunu borom. Mhm. ndaxte euh, sama maam dama daan dégg mu naan ay wax boo ca ay wax yoo xamante ni bëgg nga mu jëriñ ñëpp. Mhm. boo ci lebu fayoo ca bor muy njariñal ñëpp. te it dafa bari ñoo xamante ni tey bu ñuy ànd ak nit. Mhm. c'est juste parce que yaakaar nañu ca la nga xamante ni moom lañ ko la ko kooka di jox. ba na xamante ni noonu la war taxawoo réew mi du ko taxawoo wala la mu war taxaw lañ ko ko dénk du ko taxawee. Mhm. donc tey Omar euh, en tant que homme de culture en tant que tey nit boo xamante ni sànq dégg naa ko ci say wax ndax loo wax ba daane da ngay bëgg a indiwaat. Mhm. valeurs yi nga xamante ni perte nañ ko. Mhm. ana tey lan ngay wax ci loolee nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy réeral ndax léegi ko wax la plupart. da ngay wax parce que ka nga nekkal la tax waaye doo wax selon fañ lañ la teg euh, la nga xamante ni moom ngay représenté doo wax ca loolu. mais la ngay yaakaar man Macky Sall joxuma poste mhm. joxuma àdduna ak li ci biiram mhm. mayuma kër mayuma oto te mi ngi ko fiy defal ñu nga xamante ni ci réew mi la ma ñeme ca moom ñemewuñu ko ca moom la ma àttan ca moom àttanuñu ko ca moom la ma daj ci moom dajuñu ko ci moom la mu muyoo la mayo muyewuñu ko mayu ci moom mais awma ci problème seen wërsëg la bu ko yàlla tuddee sama wërsëg ci loxoom danaa ci jot bu ko yàlla tuddul duma ci jot ndax man yàlla laa yaakaar te la bëy doon toog ca tef ba ca sikket mën na caa toog ba dee man ci teraangay démb ya laa bokk namuma dara du ma arriviste namu ma dara dara nag mm-hmm. am na loo xam ne nit mënu koo waxal boppam waaye man ñi ma xam xam sama famille mm-hmm. xam sama ndey xam sama baay xam nañ ne ma lu ma dugg maa ca dugal sama bopp waaye xiif yóbbuwuma ca mar yóbbuwuma ca rafle yóbbuwuma ca Président Kennedy daf doon wax ni you can find what you can do for your country but not what your country can do for seetal yow loo mën a defal sa réew. Mhm. mais pas lu la sa réew mën a defal. effectivement bien sûr. jamono nag léegi. être utile dafa yàqu. Mhm. ba koo logal mu log logal nit ñëpp defee ni ñëpp a yem te bu cër yëpp yemee am ñu gedd seen bopp. man ku ma àndal dama ànd ak yow ngir yàlla. Mhm. te man ku ñeme péete la man duma ànd ak nit di raf raflu wala may ànd ak nit di nëbbatu wala may ànd ak nit yi defi na ko sax dumal ma genre boobu man xaw ma loolu. man su ma ànd yow. dama ànd ak yow dama ànd ak président Macky Sall dama koy yuuxu à haute voix sama lépp moom la moom lay jàppale moom lay soutenir. Mm-hmm. te ku bëgg jëkkër bëgg jabar. bien ñun Sénégal moo nuy soxla man tey ji maa ngi yeneen facette yoo xam ne mën naa jël politique teg ko fële te du tere sama réew dafa may soxla parce que maa ngi am leneen lu choix nag ñu ko euh, ministre Aïssata Tall Sall di waxe nee na ñiy critiquer politique dafa am yoo xam ne pour nga taxawal sa réew pour nga jàppale sa réew foog nga def politique. Mm-hmm. politique citoyen bu ne da nga ko war def. am na ñoo xam dañuy wax sa naan ah man bu ma juddoo ba léegi mësuma voté yow kon tekki dara ci réew mi <laughs> amoo kàddu ci réew mi parce que sa carte boobu ngay xeeb mooy sa kàddu ci réew mi mm. foo nga voté mm. di am koy tànn ak koo koy du tànn mm. koy bëgg ak koy bañ ak looy jàpp ak loo dul jàpp mais soo toogee rek ni man bokkuma ci réew mi du ma def lii du ma def la loolu du avancer réew. te ñiy dugg ci politique dañuy jël leng yi ngir mën a taxaw réew mi ngir defar réew mi. ndax melentaan ni sax boo gisee seen soxla di dem dañoo nangu kenn jiitu ñu ci des topp ci ginnaaw. incha allah nañu xam ni njiit yàlla moo koy sàkk sàkkul boppam. tubaarkàlla hmm. waxtaan bi euh, lu ci bari génn na ci. Hmm. lu ci bari leer na ci mais aussi lu ci bari feeñ na ci. Hmm. te loolu yëpp rek ñu ngi ko doon amee ci ki nga xamante ni moom mooy Omar Diaw Seck moom la ñu invité woon. nga ñu dalal. Mhm. sunu xol sedd na xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. waaw balaa may tàggatoo am na loo xam ne fàtte nga ma ko laaj. waaw muy la naat. xam nga maa ngi lay wax ni la la 2 juillet. effectivement mhm. sargal bi hommage bi le 2 juillet. Mhm. dafa am benn concept bu ma bind indi ko. daaw defoon naa benn programme boo xam ne dama ci ànd compagnie du théâtre national Daniel Sorano. ñoo bindal leen concept teg ko ci loxo. Euh, Abdoulaye Koundoul le directeur mu validé ko. Mhm. ñu taxaw monte ko ci 14 jours def spectacle bu nga xamante ni dafa fees ba ñuy tëj buntu Soranoy. tubarkalla. ren les archives sont là. voilà ma mhm. gis euh, ci Afrique rawatina ci Sénégal. Mhm. dafa am ñu fi nekk ci artist yi nekk ci ndaanaan yi ndaanaan nag. mën na nekk woykat mën na nekk tëggkat mën na nekk fecckat mën na nekk historien. balaa ñu nit ñi di leen rendre hommage wala ñu di leen defal dara rek dañuy bàyyi ba mu ba mu faatu. te gis nga ko faatu loo ko defal dul ñaanool ko yàlla wàcce nga ko ak sàkkal ko sarax. amatul dara ci àdduna. ñu ci bari sax nee nañ bu loolu amee bu boobaa doonatul rendre hommage ngis ngistal la. léegi nag nit ñi man damay préférer nit ki nga rendre ko hommage bi muy dund. bi muy dund teral ko ci bi muy dund waxal ko ay baax baaxam. lu ca ruus loo koy terale nga terale ko ko mu jariñoo ko moom njabootam door mm-hmm. dem mm-hmm. man loolu laa gis looloo tax nag ma def benn euh, mbir bu nga xamante ni dama ko tuddee sargal ndaanaan mm-hmm. indi ko fii aux États-Unis ànd ceeg euh, au Sénégal ànd ceeg sama xarit Al Ndiaye ñu yóbbu ko SODAV protégé di ko def loolu yëpp ma tànn nag le 2 juillet pour tànn ci ñaari ndaanaan kenn ki di bàyyi communicateur traditionnel di historien moom tamit di animateur muy El Hadj Mansour Euh, kenn ki ci des di ajaratu xaar mbay ma jaaga di yaayu ndaanaani mhm. tubarkàlla ku ci nekk ci ñoom ñaar nag am lu ma boole ak yow lu bokkul sax ci milieu boobu ñoom xam nañu man xam naa ñi war a xam-xam nañu ma tànn nag le 2 juillet fas yéene ko def au théâtre national Daniel Sorano macha allah euh, tubarkàlla macha allah ensemble instrumental muy ensemble lyrique bu Sorano dinaa ko ci dugal les filles du ballet nationale dinaa ko ci dugal mhm. ndaanaan yu bare bëgg naa ñu bokk ci ku ci mel ni Kiné Lam mhm. Fatou Géwël Fatou Lawbe mhm. Khady Mboup euh, tubarkal la ñoom euh, Aïda Samb Titi joor Mbaye euh, ak ki nga xam ni moom moo di maanaam Ami Collé Mm-hmm. ak ñoomin euh, tubaarkalla macha allah Mbène Diatta. Mm-hmm. Boussa Seck. Mm-hmm. Euh, Alsane Mbaye ak ñoom Xadima Ngone Ndiaye ak Mati Thiam Dogo yeneen artistes ñoo ñëpp bëgg naa ñu participer ci. ndaanaa ne magi ci réew mi ku ci mel ni ñoom Youssou Ndour ñoom Waly ñoom Baba Maal ak ñeneen ñi ci des ñëpp. bëgg nañ leen def ay invité d'honneur mu nekk bis bu rëy bu nga xamante ni incha allah ñoo ngi ko fas yéene def le 2 juillet. 2022 au théâtre national Daniel Sorano à partir de 20 wax dëgg yàlla waroon naa ko ci jaarale kontaan naa bu baax yaak équipe bi nga àndal wax dëgg mm-hmm. yàlla macha allah euh, euh, wax dëgg yàlla kontaan nañu loolu di kontaan suma rakk ju baax jële Mbay Jaañ waaw moom nga xam ne fu may dem moom moom laay àndal moom ngay àndal ñun tamit kontaanoon nañ bu baax mm-hmm. sunu xol it seddoon na ça a été plaisir tey ñu toogoon ak yow mais aussi diktal ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateur au Sénégal 7 yi yi nga xamante ni ci koor gi mm-hmm. tout le temps dañuy bëgg a jël benn numéro dem ci ñi nga xamante ni da nga leen di soxla daal leen koy indil ngeen am ko en exclusivité toujours ci la chaîne leader mhm. chaîne bi nga xamante ni tout le temps dinañ def suñu kémt lay kàttan ba lépp li nga xamante ni bëgg ngeen ko ñu leen koy jox man aussi tey ki nga xamante ni moo jaar ci grand mbubu bu rafet bi mhm. du kenn ku dul Absa Diop borom Lamp Fall Couture maa ngi koy remercier bu baax te di ko kontaane mhm. kon képp koo xamante ni rek bëgg nga ci euh, tenue yu rafet yi que ça soit mooy bu moderne wala mu nekk traditionnel mën ngaa woote ci 77 369 08 01 su ko defee mu daal lay defaral ba mu baax kontaanoon nañ sunu borom yàlla na leen taxawu projet yi ngeen am yal na ko sunu borom mottali dafal leen yàgg yokk tekki jariñu ci barke Nabil Moustapha ma remercier bu baax nag mm-hmm. euh, Modou ak Dieye ak ñëpp ñi nga xamante ne tey fekkoon nañ leen ci kër gi ñoom ma Bousso Khady Lika mm-hmm. donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare te di leen kontaane mais mention spéciale à Al Ndiaye mm-hmm. sama professeur mi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, chaque jour ci lépp loo xamante ni bëgg naa ko rek comme